benn affaire bu ma gisoon Pikine xam nga sama yaay dafa gaañu le ci weer bi ñu génn le avril dafa gaañu léegi nag Pikine lañ ko suul ma demoon Pikine nag di ko ziyaare moom sama yaay ak frère ñoo dend léegi ba ma ziyaaree sama yaay ba pare ma dem ci bàmmeelu frère di ziyaare frère bi ba ma toogee ci bàmmeelu frère bi nag ma remarqué benn butéel bu ndaw bu ñu tëj bu am këyit bu ñu dugal benn këyit ci biir maa ngi ko gis ci sama bàmmeelu frère yaay bi ñu mel ne lu ko doon suul daal mais yeggul comme daal puus nii rek teg butéel puus kook sa baaraam tuuti rek ba genn wàll gi suulu mu des léegi nag après maa ngi àndoon ak mooy sama frère yaay boobu gaañu noonu maa ngi àndoon ak benn doomam bu jigéen léegi nag kooku tamit après kooku ñu gis butéel bi man ak moom ñoo ko gisandoo. lii de dafa mel ni butéel la man ko waa butéel la léegi nag ñu daal di koy jël bañ ko jëlee nag ba ñu dëppee ñu yóbbu ko ji benn sëriñ léegi sëriñ bi liiral ñu ko daal di siy liir benn turu ku tudd euh, Siraajo Seck. ñu ne dafa am sëriñ bi nee na dafa am ku mu jotaloon ku mu jotaloon nag moo ko liggéey liggéey boobu pour kooku bu mu wérati ci àdduna na léppam yàqu bu mu amati dara ba keroog muy dee waaw ñu jógeeti ci paa boobu dem ci beneen paa paa bi tam waxaat ñu la même chose tamit paa bi nañu nag da ngeen ciy sotti saw wala yi demee noonu léegi ñun sotti nañ ci saw ba kii ko euh, siraajo sekk boobu su mu nee déggu turam mu xam ne rek ka mu joteloon wala yi demee noonu wala bu doon dafa feebar wala ay gis na changement ci boppam wala jékki-jékki na jóg na xam ne pikin lañ suuloon affaire am pikin si butéel la nekkoon ñun ñi ñoo ko sulli dégg nga sotti nañ ci saw